centre bi dama ko inauguré am ci satisfaction lool waaye balaa loolu dama bëggoon sant gërëm waa ODCAV ci organisation bu baax bi ñu def ba nga xam ne final bi mu ngi déroulé wu dans les meilleures conditions possibles maa ngi kontaan ci collaboration bi ville de Guédiawaye am ak ODCAV depuis plusieurs années nga xam chaque année dafay amélioré wu. Euh, di leen sant di leen gërëm di leen waxaat na ñu ngi toujours seen ginnaaw ndax lii liggéey la boo xam ne dañ koy defal état bi di ko defal ville bi loolu bu weesoo. centre de formation bi ñu tijji léegi mbégte la bu rëy ci ñun ak kontante ndax dafa nekkoon lu nga xam ne ñi créé woon GFC dafa yàggoon a nekk seen mëbët yàlla nag tudd ko woon ndax GFC am na fi ay succès yu bëri waaye am na fi tam ay tolof tolof tey bu ñu tolloo ci juboo mën a juboo boole doole yi bay créer centre de formation loolu nekk na satisfaction waaye defe naa ñi créé woon club bi démb ak barki démb dinañ am kontante jumtuwaay yi vraiment bett na ma sax qualité bi ma fa fekk ndax fekk naa fa sant de formation boo xam ne mën na jël vingt six xale ñaar fukki xale ak juróom-benn fekk fa cafétéria fekk fa benn euh, cyber espace bu ndaw la waaye niñ ko aménagé ànd na ak xel waaye lii tàmbali la rek ndax ville de Guédiawaye mu ngi tabax centre de formation boo xam ne dina mën a jël fanweeri nit ak juróom-benn am na ci biir infirmerie am na ci biir centre de préparation physique. am na ci biir salle vidéo boo xam ne ay cours la yoo xam xale yi dinañ ci mën a jàng ak bépp jumtukaay boo xam ne centre de formation yu moderne yi ci àddina bi dina ko am te stade bi dañ koy mettre à disposition. donc gëm naa ne lii ñu tàmbali tey dafay continuer te bu continuer succès Guédiawaye lay doon. waa xam nga buñ ne final mu ngi dajale ceddo bu zone 3 ak alliance bu zone 1 final boobu dana neex ndax ñaari ASC yooyu ku ci nekk. liñ la ragné moy da nga takalo ak say wa dekkando say supporter dañu mëna anime animer yene a ngi dégg ambiance bi ci ginnaw té tamit di di point de vue footballistique ñu ñu ràññee lañu kon nak am nañ yaakar ne deuxième mi-temps dana neex lool et que le meilleur va gagner. supporter yi lan lañ doon wax rek lañ leen di waxat moy ñaan leen fair play ñu ñëw ci football ci jàmm le meilleur gagne ñu dellu ci jàmm ak ngi